Assalamualaikum mbokk yi man la seen mbokk ibrahima mbub maa ngi leen di nuyu di leen jaara di leen ñaan ngeen seetaan vidéo boobu ñu commenté ko waaw xam ngeen yàlla def ñu booleeg ay mbindeef si biir suñuy kër si biir suñuy néeg lu si mel ay unku ay mbóot gis ngeen unku boobu ni muy maree brosse à dents moo tax may ñaan ngeen di protéger seen brosse à dents wala yi ngeen di jëfandikoo man nag dama leen di woon sama méthode lu simple la te it lu sûr la te mooy bidon yi nga xamante ni boo bidon boisson la ak boo munti jël boo ko jëlee yomb na lool ngay jël sa brosse à dents boo ko jëfandikoo ba pare dugal ko ci biir daal di ub ba keroog nga koy soxlawaat te du la déranger waaye dalay leer ni dara du ci dugg loolu daal mbokk yi maa leen ko may di leen ñaan képp ku partage vidéo bi yal na la yàlla may wér ak gudd fan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba beneen yoon